maaleykum salaam. Haaj Abu Bilal. waaw kooku kan la. waaye Don Diego. Eh! Assane Diégo na nga def. oui toujours rek pour confirmer benn euh, déclaration bu ma fi dégg euh, ab wax ci Demba. wax naan euh, ku ku naan benn waay bu ñu naan Cuq de moo dugg na dama fàtte sama classeur. ci sa très bien Cuq amul sutura parce que Cuq vraiment kontaanu ma ci li muy def day yàq suma clientèle parce que on est en le mois de Ramadan. oui donc kilifa yu bëri franchement dañuy war waru gàlle di ñëw ma leen di suturaal ñu fay añee. waaw 3 heures 4 heures 5 heures au plus tard ñu ngi bi. man de bokk ma ci. alors que bi ma déggee loolu nag. ça m'a surpris ma ni non non non vraiment Haja Abou Bilal moom vraiment lii métti na ma trop. daf lay yàqal daf lay yàqal parce que bu fekkee ñu wax ko da lay ma yàqal sax parce que léegi léegi ma ñaari kilifa woo te ay sëriñ yu mag la ñu xam nañ leen ci dëkk bi. waaw donc duñ fa mënante ñëw parce que ma métti. ma ne mais nag amul sutura quoi franchement. ma ne ma ne Don ah. Diego. oui. ma mën a suturaal Sénégal ñëpp a ndax man ñëw naa sa restaurant war a ñëw fa ah. waaw mais nag vraiment nag vraiment nag vraiment dëgg neexul nag mais sacoche boobu bi ma xoolee vraiment say filiation laa ci gis quoi ak say quelques documents et que ma pare li ma surprise sax li ma li ma gën a sol euh, impressionné ci affaire bi fayuloo addition bi yow tamit bi ngay dem mujjoo fay addition bi famille dafa jox addition bi et puis ñaari famille nekkoon naa côté yaa leen payé yaa leen payé à manger vraiment dëgg neexul nag mais man tamit suturaal naa la ba sonn mais vraiment âge. Ah, euh, fay loo xam coupé leen ko coupé leen ko saytaane la yaa bon yaa bokk bon yow doo nit ku baax tey doo nit ku baax ëllëg man musuma dugg sa restaurant te fayuma yow xam nga ne astafurlaa dugguma fa sax may fay ak ñàkk fay man dama la xam man dama xam doon jéego ak doon Maradona yàqkatu der bi nga doon man musuma dugg restaurant te fayuma xam nga ne kii amul benn sutura. ki fi dugg barke démb naan cuq dama fàtte eh, sama classe ci restaurant doon jéego di yàq sama der mel na ka man damay jaar foofu ma yaakaar na di nga sama der nga koy tilimal yàlla na sa restaurant lamb yàlla boo gis client ku fa lekk yàlla na fot ku fa lekk yàlla na biiram daw yàlla na nga yàqule yàlla na ja yàlla na client yi yàlla nga am ay yu gaana monsieur yu gaana yu bon ku fa lekk fot yaa bon